kon sëñ Mbàkke Abdourahmane danoo bëgg tey président nag sëñ bi daan teeru waaye teeru tey bii daa am lu mu ci jublu tey rakkam yëpp ak i bokkam ak seex yoon wi ñëpp ñëw nañu ku kër gu mënta ñëw yabal nga kilifa mu ñëw ndax seex yi ay seex yi képp xëjuñu cib saal waaye moo tax mu ne kon sëñ Mbàkke Abdourahmane nañ ko bind soo toogee mu wax ko ñëpp dégg ko ba nga xam ni sëriñ bi teeru na la waaye yoon wi yemb na bisimilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Muhammadul Makki. yow Muhammadul Makki. président Macky Sall. noo ngi lay gàttandu ak mbégte mu réere bokk yi jiite mbooloo sama bokk yu baax yi jiite mbooloo mi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 jamono jooju ma nekk taalibe bu nekk ci sama weti ay kilifa. jamono jooju ma nekk ab taalibe bu nekk ci sama weti ay kilifa. booba la la may won yaakaar ju mat sëkk ci sama diggante ak moom. won yaakaar ju mat sëkk ci sama diggante ak moom. ak doyloo gu sëkk. di ma tereel it ngir Serigne Touba. di ma tereel it ngir Serigne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 xam lenn. jéemumaa xam lenn. jéem a jéem wala may jéem a def lenn. wax wala may jéem wax kenn dara. loolu de amu ci. sëriñ bi rek laa teew. sëriñ bi rek laa sëriñ teewlu. dénkaat ko sama bopp. dénk ko mbirum mag. mu ne loolu. defe naa ci li nu weesu. dégg na ko ci man ay yoon.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 maa ngi ñaan suñu boroom ñuy def di dindi ci barkeb sëriñ bi mu may la jàmm maa ngi ñaan suñu boroom ñuy def ak dindi ci barkeb bi mu def jàmm ci réew mi maa ngi ñaan suñu boroom ñuy def ak dindi ci barkeb sëriñ bi mu may waa réew mi jàmm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 yaay kilifa réew mi. kon yow rek lañ koy mën a waxtaanee. yow rek lañ ko mën a waxtaane nga xam ne loolu mooy suñu itte. nga xam ne loolu mooy suñu itte. loo ci man ci jàppale ñu ci. dëkk bi am worma. wormaal ki fi nekk. wormaal dëkk bi. ci lépp lu ko fi neexul. loolu loo ñuy dimbalee. loolu yi lañ ci mënta ñàkk. kon noonu la demee.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 lahu tadarractu fiikum mubgidan lakum ma lam tatuubu lahu wallahu qad shahida assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci ndigalul kilifa gu tedd gi cheikh Mouhamadou Mountakha na fi yàgg lool te ànd ak wér ba mboolem naal yi nga xam ni am na ko ci liggéey lislaam am ko ci liggéey Sëriñ suñ borom may ko kattan ak wér ba lépp mu mottali ko di jot li nuyoo ci njiital réew mi président Macky sàll ci ak mboolem délégation bi mu àndal ñëw ni ko sëriñ bi waxee ci làmbiñam te moom waxoon na Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ne ko sa ñaari kàddu yii de moo gën suñ junni kàddu kon lu wax ci ginnaawam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 feddali sama kóllëre feddali sama jofeel waaye feddali sama cant kon sëriñ bi nag wax ma ne kon ndegam mi ngi ñëw nag te yitte ji day yitte ju rëy ci man yoo xam ne amul jënd yitte ju ko gaare yi kon njabootu sëriñ Touba gi ak mboolem taalibe sëriñ Touba yi te kenn génnu ci nag ma leen ko yëgalal jërul nag mbooloo mi di ñëw waaye ñi kilifa yi nañ ko yëgal ñëpp ñëw teewee si ko ndax ndigal li ñoo xam ne ci ñoom ñëpp lu jëm te ñoo war a ànd sàmm liggéey bi bismillahi irrahmani irrahim wa zakkir fa inna zikra tanfaau lmuminin taalimatun wa tawjihatun min alcheikh mohammadin ilmuntaxa mbake alxalifati alam liltariqati almuridiya intilaqan min almabdai alislami alsami allati yujibu ala almuslimi ibadata allahi taala بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وهو الأمر الذي من أجله أسس شيخ الخديم رضي الله تعالى عنه مدينته المحروسة ودعا كافة روادها إلى الالتزام بهذا المبدأ الذي يمثل تعاليم الإسلام الصمحة وامتدادا لما قام به الشيخ عبد الأحد مكي ابن الشيخ الخديم رضي الله تعالى عنهما li sawni xurmati madinati tuuba wa nuzimil mutabaxa fiiha min itixaasi qaraarin saarimin li radci kulli qawlin aw ficl yunaafi alqiyam alislamiya wa yatacaaradu maca tacaalimi alabdi alxadim radiallahu anhu fa in alxalifata xafidahu llahu wa racaa yamuru almuridin naasixan li kulli man yaqbalu minhu nusa an yataqayadu bil islam wa yuxaafisu ala arkaanihi wa xaasatan alsalaata allati hiya ahamuha bi iqaamatiha fi awqaatiha wa mawaadiciha maca shurutiha wa aadaabiha mata adrak mata adrakathum ala dawi ma qaalahu alabdu alxadim radiallahu anhu man shaxalatuhu alsalaatu an alashyaai intafaca biha wa bilasyaa wa ala alasaasi nafsihi fa in alxalifata xafidahu llah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 bismi tariqati almuridiya min gayri isnin adama aliltisaami bitaalimi alislamiya wa wifqa almanhaji alxadimi fatxe muassasatin taalimiya aw masjidin duna muwaafaqatin wa tarxiis min allajnati almukallafi bizalika haasa wa yataxattamu ala kaafati almuassasat altaalimiya fi madinati tuba altaqayudu bilmuqarari taalimiyi alladi yatimu i'daaduhu fi itaari mujamaci cheikh ahmad alxadim li tarbiyati alislaamiya wa sa tuttaxasu ijraatun saarima didda kulli almuxaalifin li hadihi taalimat min tarafi allajna almuraaqiba walmukallafati bizalika bitaawuni maca alsulutaati alrasmiya hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman kathiran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 naal wu rëy di jumaay Serigne Touba ji ca Ndakaaru te sëriñ Saliou Mbacké radiyallahu naaloon ko ba tegoon xeer wa ginnaaw bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw teg xeer wa ci pàkk bu mujj bi Cheikh Sidi Moukhtar ñëw tàmbuli liggéey ba ba jëf ci lam ci jëf ba ñoo ñëpp suñ borom def ñu wuji yàlla fekk Serigne Touba mu ñëw nag ngir fas yéene àggale liggéey ba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 la sëriñ bi wax ne da ko tànn ngir bëgg ci ubbi jamaay Masaalikul jaan ji loolu nag dafa wax ne day liggéey bu rëy ndax nee na li tax mu tànne ko noonu mooy isa sakartu zalikal mabita wa zalikal amira wa subuta fitnaal gañ fitnaaloon sëriñ Tuubaa ca Ndakaaru ba sëriñ bi di ko fàttaliku suñu borom faye ko loola moo tax mu dàkk ñaari guddi yee bëgg ñu ubbi ko ci kon nag ñu ngi la ko yëgal fas yéene nag ñam tegoon liggéey bi ci seen loxo